merci beaucoup euh, ci question bu njëkk bi euh, yaa ngi laajte problème mu parrainage yi parce que en fait euh, problème mu parrainage bi yaakaar naa wax nañ ko waxaat ko parce que nit ki nga xamante ne dafa présent sur le terrain ci social ci jàppale nit ñi dans les coins les plus reculés du Sénégal di dem fu nekk tey bu ma indi woon flyers kii bi euh, programme professeur Daouda Ndiaye avec les réalisations noonu nga gis des photos à l'appui euh, ci gox yeeg goxaat yi nga xamante ne mi ngi fa doon dem donc ci gox yooyu noonu ak goxaat yooyu nga xam ne yàgg na leen jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw action yi doon récupérer péage parrainage yi bi ñu fa demee dafa nekk lu yomb si ñoom parce que nit la boo xamante ne xamoon nañ ko déjà ci jàppale leen xamoon nañ ko aussi déjà ci taxawoon à leur chevet di leen di leen di leen may li nga xamante ne moom mooy euh, ay éléments yuy mën a contribuer à la paix et à la quiétude sociale. donc loolu noonu moo tax tey amuñu benn souci pour mën a am euh, les les les parrainages de ces de ces de ces citoyens là. parce que xamoon nañ déjà le professeur Daouda Ndiaye un euh, bon philanthrope mais aussi xamoon nañ la professeur Daouda Ndiaye ci yàgg bi nga xamante ne yàgg na ak ñoom di leen jàppale. donc loolu noonu moo tax tey bi nga xamante ne ñëw nañu pour euh, euh, demander leen seen i parrainage mu nekk loo xamante ne lu yomb la. te loo xamante ne maanaam amuñu ci amuñu ci benn problème. deuxième question bi. deuxième question bi euh, yaa ngi wax lan moo ko titillé parce que en fait le professeur Daouda Ndiaye euh, c'est pas euh, un simple médecin en plus d'être médecin dafa nekk koo xamante ne dafa yàgg yëngu. ci affaire euh, organisme international. Mm-hmm. di euh, yëngu ci loo xamante ne dafay participer au développement du monde donc loolu noonu xam-xam boobu. côté santé ci côté bien sûr ci côté santé. donc mais diriger dëkk moom nekkul santé kese. non diri je je peux dire je peux dire mais diriger dëkk aussi nekkul géologie aussi kese. je bien sûr donc ah, maanaam nit ku nekk nit ku nekk voilà nit ku nekk. Euh, dafa am benn domaine de compétence il a mais attention Macky Sall il a occupé des postes administratifs yoo xamante ne premier ministre avant d'être président justement ah, je suis professeur c'est pas le cas de professeur Daouda Ndiaye bien sûr je suis entièrement d'accord mm-hmm. mais en fait pour vous dire que donc au euh, zéro non non <laughs> bien sûr en fait c'était c'était juste pour vous dire que en fait euh, ku nekk da ngay am fooy sa domaine de compétence ci domaine de compétence boobu noonu nga am nag en fait ci ngay tàmbalee teg ay jalon bi nga xamante ne nit ñi dinañ mën a ne ah diw mii kat sëgëm ci domaine am def na ci lii tey suñ ko joxee réew mi dina am benn restauration de valeur boo xamante ne dina ko indi par rapport ak la gestion la gestion de des choses publiques donc tey ñun xam nañu euh, ñun ñi nga xamante ne xam nañu le professeur Daouda Ndiaye xam nañ ne il est vraiment à même de gérer de gérer ce pays. et de restaurer les les les valeurs les valeurs.